Diallo Ndeye Astou Sow euh, di liggéey MECFONES euh, benn mutuelle d'épargne et de crédit fond national des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal ñu ngi ko créé en 2002 jot agrément am donc euh, c'est une mutuelle d'épargne et de crédit di def épargne dencal membre yi seen xaalis ba pare aussi di def crédit donc ñu ngi nekk HLM 2 fii ci Dakar éclaireur ñoom ñoo ko sanc maa ngi tudd madame Fayro Rokhaya Fall man maay formatrice bi le madame Kane Aminata Ndiaye présidente Calabas Takku Liggéey du maa ngi tudd maam Koumba Diop madame Thioub dëkk Sacré Cœur 3. Kiné laa tudd. Calabas bu ñuy wax suqali jigéen. foofu laa ñëw ci formation bi tey. maa ngi tudd Sénéba Fall. Medina laa jóge Ndeye Amy Seck moo ñu fi maa ngi tudd Aminata Ly maa ngi dëkk Sika Baobab euh, ñun ñoo yor kalabaasu ànd booloo liggéey suñu quartier. maa ngi tudd Ajaratu Janké Diatta Je suis l'association association FARC euh, formation la est une institution de microfinance de microfinance, mutuelle de crédit des éclaireurs du Sénégal mutuelle l'habitude former ses membres donc euh, membres réseau madame Kan euh, formation bi ñu koy faire ci Sacré Cœur. dañuy défal faamu Sénégal gi yépp ndax on a des guichets au niveau de euh, au niveau de Thiès on a des guichets au niveau de Bandia euh, Diofior Yëmbal Rufisque chaque année dañ fay des formations ko jaglel ko ak en partenariat avec les guides et scouts du Luxembourg. léegi nag euh, formation yooyu suñu membre yi lañ koy defar ak ñeneen ñi nga xamante ni duñ sunu membre donc dañ leen di jàngal li nga xamante ni ñoom mun nañ koo jëriñoo mun ko liggéey mu permettre leen ñu mun a am épargne ba pare bu ñu leen jàngalee ba pare dañ leen di accompagner finance leen pour ñu mun a seen bopp. man ñëwuma association parce que ñun Sacré-Cœur 3 amuñu association lu ñu jafe la wax dëgg yàlla mais Aminta Ndiaye moom moo ma dugal daal si affaire yi pour ma wutal ko noom ay daal koñ bi. man def na fi 25 ans mais ñu suñu koñu amuñu ben formation yii macha allah macha allah wax deug yàlla jafe na ma 25 ans nga def ko ci quartier mosoo gis ku la kay def formation grâce à Aminta Ndiaye motax ñu am formation. amna na torop trop na ci jigen ñi ndax jigen ju ci nekk ta tayelo di nga am lo liggéeyee ta dina dimbali jabot motax tax fi tay ñu jox ñu formation bi ñu diko def. pour bu ëllëgee ñu mën cee suqali sunu bopp suqali ci sunu njaboot suqali ci réew mi. defar saabu jàng naa fi savon yu bëri jàng naa fi defar euh, gel de douche jàng naa fi defar eau de javel yëpp xaw ma ko woon dama ko doon jënd mais bés naka tey dina amal na ma njëriñ daal jàng naa fi lu bëri saabu yu bëri savon curcuma savon carotte savon nebedaay ak savon beneen bi yu bëri daal jàng naa te li ma ci gën a intéressé mooy saabu ndax jaboot boo amee saabu rek. set ñëw na ci moom te jàngal nañu fi saabu jàngal nañu fi eau de javel jàngal nañu fi lépp loo xamante ne moo yore jigéen ci këram. bëgg naa si business bëgg naa liggéey ndax man damay liggéey rek ma tax a jóg damay liggéey man tëdd daal laay bañ ku ma financé tam ma liggéey gis naa si njëriñ boo xam ne daal business sax laa si gën a gis waaw. business moom laa si gën a gis naa sama bopp. amal na nañu benn njëriñ boo xamante ne boo ëllëgee bu ñu ci ku ci sabar moom mën nga cee am loo suqalikoo. man nga cee defar di jaay man nga cee defar di ci suqali sa kër di ci suqali sa njaboot. ñun bi ñu jógee fii bu soobee yàlla am na ñoo xam ne ñu ngi ci colle base bi te ñëwuñu ñun dañu liñ fi jëlee fii dañu ko fas yéene dem jàngale leen ko. ñu formation bi tey balaa maa def dara damay gërëm di sant ki tax ñu mën a def formation bi ki may accompagner depuis sept boobu ba tey lu bëri su ma ko mënee yàlla ak ñoom a tax muy waa FONES de passage ma mooy gërëm mooy joor caar na Diop madame Ndiaye. ñu fa nekk ñuy accompagner chaque fois di ma mën a may formation yi ma mën ci jàppale jigéen ñi. dëgg neex yàlla depuis trois jours on a vu que les femmes sont engagées ku leen jàppale ñu dem wax deug neex yàlla te loolu moo nekkoon objectif formation bi té wax deug neex yalla kontaan nañ ci bu baaxa baaxa baaxa a formation bi mom wax deug fa neex yalla gis nañ ci suñu bop parce que dañuy bayyi suñu kër 15 h pour ñëw fi pour am luñu jang pour am luñu mëna def tamit. Nous jabor la aussi parce que les produits utilisés utiliser tamit euh, dañ koy donc euh, formation bi gis nañ formation bi rek xam la ndax da ngay mën lo xamni mënoko won ak euh, ak day tax tamit say Nous avons ya nga daan jënd ci ba sa ci biir kër gi non seulement mais say revenu day am-am day yokk ndax mën nga défar tam jaay def ci kër gi motax nak nag euh, formation bi am solo lol aw def nañ fi gel de douche savon kii en poudre lessive en poudre yi def nañ fi dal forme ki yu bari savon yu bari demb ak euh, depuis mercredi ba tey moom ñu ngi jang lo xamantene mom dañ koy utiliser. kon dama ne euh, sans ki bi mo jallul dal manam

le premier marché c'est la la maison c'est la famille parce que li nga xam ne moom lañ fi moom lañ fi jàngale tey nit ku nekk ménage bu nekk soo xëyee da nga koy dem jënd ji kon sa premier client euh, yow sa bopp la soo paree sa environnement immédiat sa quartier sa commune ci c'est des produits que xam ne si boo dinañ ko jënd parce que c'est des produits rares. il faut que ñi nga xam ne moom lañ ñoom la bëgg accompagner ñu am volonté comme la la coordonnatrice euh, madame madame Amy Ndiaye parce que su fekkente ne amoo volonté doo dem. parce que légui nak so amé volonté légui ak sa petit moyen di nga man, man nga démal sa bop parce que déjà tay ji ni liñ la fi jangal so démé sa kër bo démé marché sa poste lu mu oyof oyof oyof mën ngaa defar saabu boo fóotee ak sa bo sango wax deug fa neex yàlla parce que mère de famille la dañu am kër donc li yëm nañ ko utiliser consommer local lepp lo xamné dañ ko utiliser fi ci fi lañ koy jëlé xam nga té ñëmbal njaboot la dal mën nga ko défar sa bop jaayaat que même que mën nga ko defar utiliser ko tamit sa kër. comme début la damay defar wacc ci kër ga ba ba ma gëna am laamee ma defar nak daal di génné jaay ndax euh, Adama ñaam mi nga xamné ne ñu andi dafa né na leen yobbu ngeen né formation pour am lu ngeen euh, jappalé seen bop defal def ci seen bop ba pare génné jaay am lo xamné ne di ngeen ko dimbalé seen bop dimbalé seen borom kër dimbalé seen i donc formation bi am solo lol formation bi mom man mi jàngale ma len di wax ne 30 personnes la jàngal alhamdulilah rabil alamin donc 30 personnes yi ñëw nañ tay comme jour cérémonie bi la dañu ñëw invité walé seeni nit pour ñu ñëw gis produit yi jënd bo liggéey mais man lima lima li soxla ci formation bi moy ku dellu sa kër mën a defaral mën a defaral sa bopp so ci juggé mu mëna nek source de revenu mu mëna nek activité génératrice de revenu à moindre coût loolu lañ ci jublu ci yaakaar naa ne aussi loolu la ci Mek Fones jublu su ñu demee bay liggéey nag bu ñu amulee xaalis mutuelle bi leen accompagner ba ñu formé wu moom moo leen di lebal xaalis ñu liggéey. formation bi bii yoon nag dañ fa def 3 jours parce que après midi yi la ñuy liggéey xam nga jigéen ñi foog ñu nekk taal ak foog nga bàyyi leen ba ñuy def seen seen tâche domestique yi ba pare doogu mën a ñëw formation bi bon c'était on l'a étalé sur trois jours ndax produit yu ñu doon def moo bëri. tax yalla def na ni savon yag yàgg neen di def mais xam nga chaque fois rek ñun ku ñuy former madame Faye day innover di won yenen ak ñu gëna baax loolu motax ñu yok suñu produit yi de dugg ci gel de bain yi bu su après wara def ay shampoing lepp li nga xamne jigen da koy soxlo au jour le jour ñun ci loolu lañuy ñuy yëngu. dans la mesure où amna ay jeunes yo xamne si amna tamit ay adultes. ca euh, gis naa ne ñoom ñëpp euh, vraiment wane nañ ci volonté parce que 15 heures lañ leen doon woo pour ñu démarrer formation bi ca ñoom ñëpp wax dëgg dañ fi nekk ba keroog ñuy pare loo sant xale yi sax mag ñee njëkk a jóg donc am nañ ci njort lu rafet daal li ñu li ñu sentu daal mooy bu ñu fi ñëwaatee bu ñu xaaraatee bu ñu ñëwaatee fekk leen ci seen i koñ fekk leen ñoom ñii ñu xam ne euh, déjà liñ fi wussi woon mi ngi leen di jariñ. xalaat naa ci tamit parce que comme dañu yor calebasse tamit. maa ngi ko doon proposer femme yi ma ne leen léegi pourquoi pas man comme man jàng naa ko ma defar ko jaay leen ko yéen seen biir xam bu ñu déggee tam ay foire tamit dem exposé aussi parce que tam loolu daal mooy suñu mbébét daal loolu la ñuy yaakaar moo tax ñu def formation boo xam ne jàng ci xam-xam sa xaalis demu ci vraiment di remercier. ministère de la femme de la jeunesse euh, ville de Dakar di remercier ñëpp daal ak ñi nga xam ne ñoo ñu jàngal surtout madame Faye jàngal nañu jàngal bu set jàngal ñu xam-xam bu baax a baax di gër remercier nag suñu présidente Adama Niang mi nga xam ne moo ñu indi fii mooy présidente fax di di sant sama ñi ma àndal ndax fax am na fi ay jigéen ñoo xam ne fax euh, la ñu bokk donc di remercier képp koo xam ne kii rek bokk nga ci ñii tax formation bi am. fii fii liñ fi defar euh, saabu la saabu ordinaire bu ñu mën a fóote saabu saabu boo xam ne si li savon liquide la boo xam ne si aussi mën nañ ci fóot mën ci sangu man ci raxas pour yaram defar nañ ay gel de douche ak ay savon yoo xam ne si gel de douche am na gel de douche yoo xam ne si xay lañ ko defaree mbër bëf curcuma am na ay saabu mbër bëf saabu curcuma saabu xay saabu yoo xam ne si nit ñi xam nañ seen njariñ ci seen yaram donc innovation bi mooy tey man yaakaar naa maa ngi sama sixième formation ak Mekfones donc l'innovation, c'est le gel de douche parce que bu avons savon savon savon gel de douche donc il y a une innovation, formation bi la solo formation parce que qui euh, koy jàngal déjà première fois madame Faye elle est disponible expliquer parce que ñun ay des lañ dafa soxla savon liquide yi dañ ko soxla ak li ñuy fóotee te ba pare tamit c'est économique parce que tey jii savon bi nga doon jënd muy madaar nga koy jëndee 1000 francs nga ñëw defar ko mu gën a moins cher utilisation bi gën a moins cher que li ngay jënd c'est c'est économique loolu dafa baax si ñun jigéen ñi te formation bi comme ji comme nee nañ ndimbal jigéen la formation bi dina ma amal euh, njëriñ bu bari par exemple dina ma amal économiste parce que tey dit, ay lessive moins cher là jaay ba tamit dina ma parce que man sama lessive je may utiliser pour machine à laver ak sama euh, euh, lessive ak sama gel de douche bi may sango, samay sang di ci sango. par exemple un mbërboof bi dafa

di laaj nit ñi ay cotisation ay xaalis yu takku di ko jël ba pare femme femmes yi pare duñ leen former former bu ca war pour jox leen attestation sax problème la duñ leen ko mën a jox ñun grâce à toi FONES chaque fois madame Faye dañuy ñëw dañuy accompagner dafa ñu formation yu mucc ayib parce que elle est dynamique dafa baax ibbeeku yaatu si ñu muy jàngale daal macha allah jigéen ñi dañuy gaaw comprendre parce que dañ ci bëri ñoo xamante ni jàng ñu dafa am ay illettrés ak yooyu mais dañuy gaaw comprendre Machallah loolu mu daal bëggoon naa toñ ku kiy dimbali rek ñu jàppaleen ci loolu parce que ay ñu ngi ay 3 FPT ñi ngi fi ay DER ak ñeneen ak ñeneen mais pour am accès bi yomb parce que secteur informel bi dafa bëri amna ño xamné amuñu ne amuñu yene pour muñ ci accéder loolu mo war nañ ci jappalé torop ci jigéen ñi. def euh, financement par personne physique ak par groupement personne morale. dañuy lebal jigéen dañuy lebal goor dañuy lebal mag dañuy lebal ndaw. ñëpp lañuy lebal même handicapé yi dañ leen di lebal parce que yëmbal am nañ fa benn guichet handicapé yi lañ ko jox ñom tamit dañuy defal formation parce que bi c'est pas une première

membre mi membres pour installer à ce que nous ñëw membre formation financement accompagnement. Je mom un mot montagnard parce que le risque zéro ça n'existe pas mais ah wax deug neex yalla yalla ak ñuy dimbale ba nga xamanteni buñ ci amé jafé jafé suñu borom ak ñuy ba nit ñi tamit tamit ñi ngi engagement à partir de 25 000 jusqu'à 100 millions dañuy leblee xaalis. dinaa ñew leen dina leen lebal ci ce sera à moindre coût inshallah rabbi. perspective c'est toujours un, cheminement avec euh, dans la mesure où Mecfones a plusieurs guichets au niveau du Sénégal donc c'est un accompagnement moi je suis là pour accompagner l'entrepreneuriat je suis une accompagnatrice en entrepreneuriat et c'est un plaisir toujours de travailler avec McFones. Et je remercie au passage euh, Madame la directrice euh, Georgiane Diop. Je nga nee naa defar naa saabu mbër bof ma nga euh, curcuma defarna gel de douche bo xam mbeur bof lañ ko defaree ak xay ak curcuma man luñ dul lek duma ko def ci saabu ndax dama bëgg di dundal sama yaram voilà. beneen innovation moy aussi defar nañ lessive en poudre. parce que c'est de la à la demande tey jii nit ñu bëree bëri amatuñu fo ay machine à laver la am seen kër donc tey jii nii ca ñun suñu mag ñi bu njëkk ba toog ci ñetti toog ci pan di fóot la ñu xam donc su fekkente ne jamono doy dox da dox ànd ak moom donc loolu tax ñu defar ay savon liquide ak ay lessive en poudre yoo xam ne si machine à laver yi mën nañ ko mën nañ ko utiliser nga boo dee boo nekkee ci formation surtout ak ay mag échange la donc benn femme moo ma wax ne ma bi bicarbonate day dàq ay mbut day dàq ay jinax waaw ci essayé naa ko te gis naa ne mi ngi am résultat déedéet moom kay moom kese parce que ñun dañoo ragal man dama ragal en tant que jaboot dama ragal euh, sotti luy rey ay mbóot parce que xale yi fu seen lekk wadd ñu for ko moo tax ñun dañu doon ay mbóot yi def def lu leen neex ci kër parce que comme moom xale bu wadd mbiskitam waddee da koy lekk.

comprendre mais léegi internet internet mais du ñëpp ñoo am connexion pour foo toll mun a connecté wu pour xam pour mën a liir pour mën a dem euh, ci ci jumtukaay yooyu ñi ngi fi mais amulu ñu bëri njëriñ. parce que dañu bëgg jigéen ñi autonome am seen autonomie xam nga nit mënoo dëkk comme ni may wax chaque jour di ñaan di ñaan di ñaan di laaj damooy bëgg jigéen ñi ku ci nekk am sa autonomie financière nga mën a jóg faj am koom-koom lii ñu def nii tey ñu bàyyi mi dinaa décentraliser ko andi ko ci yeneen gox yi. nit ñi jóge nañ fee am na ñu jóge yoof Calabas yi dekk yoof ñii ñi ngi jóge Sacré-Cœur 2 ñii ñu ngi jóge Sacré-Cœur ñii jóge sake cœur 3 Médina am na ñu fa jóge am na ñu jóge ba Parcelles ñun parce que li yëpp réseau la ñu bëgg ñun ñëpp jigéen ñu àndandoo lëkkaloo doon benn man loolu mooy sama objectif te incha allah rabi gis yàq xam naa ne moom dinañ dinañ ci dem te dinañ ko atteindre parce que jigéen ñi aussi il faut ñu jàppale leen ñu booster leen ñu jëm ci kaw bëgg nañu tey ñun ñëpp bu ñu taxawee am suñu kayit dugg suñu defal si am nañ suñu ay kayit lu formel banque structure bu ñu taxaw ñu taxaw fa ñu am lu ñuy jox levée de fonds bu mag ñu mën a liggéey demal suñu bopp ministre de la femme rencontré naa ko mais moom jotuñu ko en personne def ñu booleek madame Bale ñu gisante woon toog waxtaan ne woon na après ñu wow ministre finance ci boppam man recevoir na ma ministre artisanat ci boppam recevoir na ma waxtaan nañ ñu nag wax nañ ñu jox nañu ay digge ñu ngi toog di den déglu di xaar këyit yi ñuy wax yëpp

Mecfenes moom du ma tàyyi di leen gërëm di leen sant parce que su ma mënee lii tey yàlla ak tax parce que lii boo ko bëggee da ngay fay xaalis bu bari nga am ko pour mën ak Malick taw aussi dama koy remercier ndax local fii moo moo tax ma mën ko am te laaj ñu ma fay laaju ñu ma dara maa ngi nuyu de passage monsieur Ndiaye moom mooy moom mooy yor mooy gérer école bi maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci ni mu ñu ko yombalee dama ñëw rek mu yombalal ma yëfi jigéen ñi fi teew it ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen wax la prochaine

ñi ngi remercier aussi euh, madame Kane mi nga xamante ne nii moo ñu permettre tey ñu ñëw fii Sacré-Cœur tenir fi cette formation ñi ngi remercier aussi la formatrice ñi nga xamante ne aussi moo jàngal femme parce que ku nekk xam na ni jàngalee dafa métti jàngal nit ki ba mokkal mom lu jafé la wax dëgg neex yalla 3 jours yi jangal na leen bañ mokkal li ñu def wax neex yalla di remercier aussi suñu dirigeant yi manam daal sante yalla ak fami nga xamanteni ni nii nañ seen yité yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñëw ba fii di def di jàng si ñu ngi leen remercier bu baax a baax ak yéen ñëpp tamit macha allah.